mbokkee xarit yi dalati leen jàmm ci seen beneen numéro bu 13 perf sur 13 TV li gën a fës ci eh, xibaar yi bokk na ci performance yu Edouard Mendy ak Chelsea naka noonu Demba Ba ak Başakşehir léegi léegi lay doon. ñu tàmbalee li nga xam ne moom mooy ak Boubacar Gadiaga mi nga xam ne 17 ans de bons et loyaux services ak jàmbaar bu Saly quitté na fa ngir dem rejoindre académie royale du Maroc ba nga xam ne dina fa continuer li nga xam ne moom carrière am moom Boubacar Gadiaga ñi koy remplacer ñaar lañu kenn ki di Mbaye Badji nag fas yéene doon entraîneur principal bi ki nekk adjoint de di Issa Aydara ñoom ñaar ñëpp nekkoon ancien international bu football fii ci Sénégal ñoo ko fas yéene remplacer eh, foofee nekkee le club bu Djambar bu Saly ngi relever euh, li nga xamné mom moy niveau nek ci continuité équipe euh, bu jàmbaar bu Saly benen information bi dafa jëm ci euh, finale bi nga xamné ne moy Ligue des champions bu CAF bi nga xamné ren 100 égyptienne lay donne ñaari équipe bi fassiyene dajé di Al Ahli bu Aliou Badji mi nga xamné ne qualifié woon na ba nopi ginnaaw ba mu daane woon Wydad bu Casablanca demb nak Zamalek mom moko fekki ginnaaw ba mu billet am ba mu ñi nga xamné ne ñoo di Raja Conca Casablanca ci match retour bi 3 buts à 1 aller bi ñu non len 1 but à 0 fatali match bi né euh, sénégalais moko ko arbitré mu di Maguette Ndiaye moom arbitré woon match bobu donc final bi ren 100 euh, Égypte lay doon. ñu daal koy jeexalee ak Samuel Eto'o international camerounais bi nga xamné jamono ji mu ngi fi ci Ndakaaru euh, ngir ab campagne bo xamné def nako ci ben compagnie aérienne bo xamné mo nek sen ambassadeur mom nak amna lu am solo lo wax né wax nako ci ki nga xamné mom modi Sadio Mané ndax jàpp né Sadio Mane, war na mën jël ay trophées yu baré, baré baré baré bari euh, ci euh, Afrique mais notamment le ballon d'or européen bi nga xamné gëm na né Sadio Mane, war na ko mëna jël lu moy lolu tamit wax na né équipe nationale ñu ngi def ay djégo bu baaxa baax te gëm na né euh, fi ak lu yagul dara war nañu mëna jël sen première Coupe d'Afrique des Nations alors ñu nous li nga xamné mom stade yi stade yi ñu ko ak nga à 35 ans et 6 mois mom moy joueur bi âgé bu but ci Ligue des champions derrière un certain Didier Drogba international ivoirien bi nga xamné bi muy dernier en Ligue des champions en novembre 2014 mo ngi nous 36 ans et 239 jours muy jamono ji ngi ci li nga nous football donte à statistiques statistique bi dafa club Chelsea bu Edouard Mendy mi nga 2010 le rendi def limu euh, euh, euh, def clean sheet d'affilée 5 matchs yu mu encaissé but Mendy lu la ci nga en 7 matchs disputés 6 clean sheet encaissé wul but contre Tottenham en coupe encaissé but Edouard Mendy ko may na moy ay qualité euh, personnelle am euh, vision bi nga xamné amna ko ci terrain bi explosivité euh ak li nga xamné tamit mu ngi koy wane bu baax baax muy son expérience mais également benen aspect bu am important bo xamné mu ngi ci muy défense bi nga xamné mo moo nekk ci kawam di axe central bi euh, di Kurt zuma ak Thiago Silva ay francophone lañ mom muy francophone donc lolu day faciliter li nga xamné mom moy intégration donc on espère que plus muy dem plus dina gëna gagner en expérience mais également son jeu de pied ndax buñu ñu xoolee euh, bi mu Chelsea ba il est à plus de 90 de passes réussies euh, ci li mu rawee ko ki nga la remplacé muy Kepa Arrizabalaga mi nga mu autour de 70 de passes réussies Lors di wane ne mu ngi progressé bu baax on espère que la même chose dina ko euh, transmettre fii ci équipe nationale bu Sénégal. ñu tàmbalee débrief bi ak euh, jëmale ko ci ki nga xam ne moom Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr bi nga xam ne bii bi mu dugal ci minute de jeu bi moo ba club bi di Watford daal di gagné Stoke City 3 buts à 2 ci match bi nga xam ne ñu ko amal ci championship Ismaïla Sarr mel ne mu ngi club ci il est mu ngi ci e division bu Angleterre mu nekk nag di def ay performance en attendant mu am opportunité rejoindre beneen club bu en Europe ou en Angleterre. alors ñu tàmbalee li nga xam dernière partie bi di agenda bu weekend en Europe dañu koy tambalé ak li nga xam ne moom Ligue 1 bu France ci dixième journée bi Strasbourg bu Abipa Diallo dinañu recevoir Olympique de Marseille bu Pape Gueye Paris Saint-Germain bu Idriss Gana nous ñoom dinañ daje ak ñi Stade Rennais bu Alfred Gomis Benen match diggante Metz ak Dijon a Nous ñi nga xam ñoo di club bu Angers avec euh, Nîmes euh, dinañ fàtt également li nga euh, derby entre Lyon et saint etienne bu ñu jugee France dañuy dem la Premier League bu Angleterre Chelsea mi fas recevoir Sheffield United Benen match Bo am solo avons la ñëpp sax di Manchester City ak Liverpool bu Sadio Mané Benen match it boo xam mën nañ ko ci Crystal Palace ak Leeds bu Marcelo à Bielsa Everton dina recevoir Manchester United Enfin dernier match euh, bi nga xamné nañ ci wara a xel ci Angleterre euh, Arsenal lay doon ak Aston Villa. buñu ñu Angleterre ñu dem Ligue euh, Liga bu Espagne neuvième journée bi FC Barcelone dina recevoir Betis Séville Valence Real Madrid Atlético Madrid Cadiz enfin Real Sociedad mi nga xamné moy premier dina recevoir Grenade ñu daldi dem ci Calcio bu Italie septième journée Cagliari dina recevoir Sampdoria bu João Balde Keita Bologne dina jouer avec Naples bu Kalidou euh, Koulibaly Lazio euh, Juventus euh, Turin Atalanta Bergam, Inter de Milan AC Milan ñoom dinañ recevoir ci sen terrain ñi nga xamné ñoo di Hellas Verona Bundesliga bu Allemagne septième journée Schalke 04 dina dem def déplacement daal di daje ak équipe Mayence Leipzig dina ak Fribourg waye match bi gëna ëpp solo ci en Allemagne diggante Borussia Dortmund lay doon ak Bayern Munich classique muy le classique du ñu fàtte également li nga xam ne moom moo di euh, super ligue bu Turquie ak match yu am solo yoo xam ne euh, Sénégal yi dinañ daje ci seen biir. mbokk xarit yi lii lañ leen indiloon ci seen numéro bu tay bi bu 13 perf ci 13 TV di leen fàttali ne mën ngeen abonné ngir suivre suñuy vidéo di leen jaajëfal dig leen daje ci beneen numéro.